ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan صدق bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah walsalaatu walsalaamu ala ashrafi alanbiyaai walmursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wajcal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida anta alladi allamta alluqmaana alxikam wa liyahab bilmustafa xayra shiyam mbokk yi fi teew maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di bég lool ci wuyu si gi ngeen wuyu si xam ne seen yëfa ñu bokk daara ji bokk ëtt bu ñuy yëngatu muy jàng ak jàngale jàpp naa ne kon teewaay bi képp ku fi ñëw rek wëllëre bokk na ci li la fi indi ak xameel ak xam-xam ak bëgg lu baax gannaaw loolu ñu wax ci li nga xam ne nag moo tax ñu woote jotaay bi muy téere bi ñu tuddee wala duñ sax tuddee téere baxsu lañ koy tuddee muy étude doon ko def ci maam alaaji Mansour ibnu Cheikh alxaaji Malik si radiallahu anhu maa ngi leeral itam li tax ma bind ko maa ngi koy leeral ci biir xam naa bu ñu ba ca kanam dañ ko gën a leeral waaye mu xaajali ko ay xaaj ñu wax ci jëmmi Cheikh Alxaaji Mansour ci boppam wax ci juddoom wax ci njàngam wax ci ay jikkoom itam wax ci itam taxawaay bu rafet bi mu amoon diggante kër kilifa diine yi ci réew mi muy taxawaay bu rafet a rafet wax ci itam injaazaatu al ilmiya mooy réalisation yi mu fi bàyyi ci xam-xam nga xam ne fii ba àdduna du tukki warees na ko mën a présenter àddina bi ngir ñu mën cee jàng yu bare bare bare bare wax ci itam xasida bi nga xam ne defoon na ko ci rakkam ju baax ja shaybat alhamdi cheikh alxaaji abdul aziz si dabaax radiallahu anhu nga xam ne maa ngi waxtaan ak benn professeur rek ne leen xasida bi waroon nañ ko traduire en français waroon nañ ko traduire en anglais ndax dafay jàngale ñett ci sama xalaat day jàngale civil day jàngale moral day jàngale itam social mboolem jikko yi nga gisoon ci Seex al Xaaji Abdul Aziz baax bu la neexee mën ngaa jël xasida gi bay për bayit bu ci nekk mën nga tudd fu ko Seex al Xaaji Abdul Aziz appliqué kon da ngay gis ne xasida gi participé na ci lu bari ci jikkoy Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Dabakh gannaaw loolu it ñëw nañ ci xasida bi nga xam ne Baye Alaaji Kebe def na ko ci Cheikh Al Hadj Mansour muy xasida gu reflété góor gi nga xam ne boo koy jàngat ci dimension yu baree bari mën ngaa doy na mën nga ne doy na sëkk nga jël xasida googu ne képp koo xam ne gis naa ne xamul Cheikh Al Hadj Mansour ma jox la ko ne la dama liiri ko wala boo ko mënta liir nga dem xool ko ko mën a jàng mu jàngal la ko boo xamul woon góor gi jikkoom mi ngi nii melokaanam mi ngi nii lii la fi nekke woon lii la fi bàyyi. gannaaw loolu li ñu poussé ci gëstu bii ñu def ko mooy man personnellement dama ko sopp dama ko sopp ndax ñaar damaa togg ak bu baax di borom xam-xam ñun ñëpp ñu xam ko muy sëriñ Mbàkke Abdourahman mu ngeen xam nekk ilimaan ci ndaam ci tuubaa weeru kool gi bari na conférence yu ngeen di gis ci jumaay tuubaa moo koy def ak fataawaay ya fay am bis ñu daje tuubaa ci kër sëñ Touba gi booba concours alxuraan moo fa amoon moom mu bokkoon ci membre jury bi bi ñuy waxtaan ba àgg ci Seex Alxaaji soo mu ne ma tudd nga góor gu baax te bi ñuy waxtaan loolu ñu ngi tuubaa ci biir kër sëñ Touba mu ne ma tudd nga góor gu baax mu ne ma da nga ko xamam ma ne ko mu ne ma ko tax da nga ko xam ne moom bu baax ne ko lan nga ma mën a nettali ci moom mu ne ma diggante Touba ak Tiwaawan dey moom ak Serigne Maodo Touré dox nañ ci lu bare bare bare bu bàyyi bàyyi alxaaji Touré bàyyi alxaaji bàyyi Serigne Haadi Touré wala maam Serigne Haadi ture ndax xam ngeen ne Serigne Cheikh Tidiane si radiyallahu anhu bi muy ñëw di seet Serigne Abdoul Cheikh Al Hadj si la àndal bu seriñ Abdul Aziz ak sëriñ Maodo ture dem seeti sëriñ Abdul Ahad si itam El Hadj Abdul Aziz da baax bi muy seeti si sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke itam sëriñ Maodo si mii la àndal doomam loolu bokk na ci lim ma nett li moom sëriñ Mbàkke Abdourahman ne ma lim daan ñëw Touba El Hadj Abdou sax daaw ko fi ñëw. mu ne ma seriñ man alaaji Mansour li mu daan ñëw Touba bari na lool lool wëllëre la woon ak sëriñ Modou Moustapha wóllëre woon ak sëriñ baara mu mag ma sëriñ Touba may gëstuwaat nag ci moom bàyyiwu ma bari na yu ma dégg ci sëriñ Maodo si yoo xam ne ci moom laa ko déggee bu Cheikh Alxaaji Abdul Aziz Dabakh di borom xam-xam di gëstukat waaye ku sopp góor gi buy wax ci moom bu yàggul rek maa ngi seetaan ci tele bi ñu invité ko waaye keroog ay jooy la mujjee wax ja ndax sopp gum sopp Baay Laaji Mansuur buy wax da doo jàpp ne sax kii doomi alaaji abdu la da ngay da ngay yëg ci ne kii toll na ci góor gi ci cofeel foo xam ne mënu koo taabiir ci làmbiñam maa ngi fàttaliku rek témoignage bu mu defoon ci moom boo xam ne sëriñ Cheikh Tidiane si moo ko defoon ci Baye Laaji Mansour xasida gu yéeme nga xam ne danga naan kii ki mu ko bind ci moom sëriñam la wala juróom la mu ngi naan ko maa baalu di xadabin alayka xasuudi id ma utiita bi mansabin mahmudi aw fayta ahdaka lil xalifati baadama qad shaana gayruka min dawi taqlidi madxan wa damman qad samicta wa lam takun qattu bi musqin qawlatan li xaqudi anta fi lbadli kama alxayaa wa bi xikmatin kal baxri id fi lxilmi kal jalmudi loolu sëriñ Seex Tijaan see ko woyoon waaye juróom bàyyil xaaji Mansuur si radiallahu anhu ñaareel ba it bokk na ci li ma gën a puuse Seex man Mansuur jëmmam ku ko gis dafa neexu sob loolu yàlla da koy def ci nit ku xool jëmmam te yàlla may la infitaax rek moo xam foo mën a bokk na da koy sob li newoon ci Alaaji Abdu dafa nekk ci moom Alaaji Abdu itam ci sama jàngat dama jàpp ne photocopie góor gi la ndax dañoo bokk lépp leeral nañ ci biir mbokk gi nga xam ne boo ko waxtaanee mën nga ne waxtaanee nga réew mi yépp moom Baye El Hadji Mansour ndax dafa bokk ci Mbàkke bokk ci Ndaam bokk ci Jolof bokk ci Kajoor foo ko ci jël rek mën ko cee jàngat ndax maam Maaram Mbàkke radiyallahu anhu moo jur Cerno Farimata xam ngeen ne Cerno Farimata moom la tuddee maam Masamba Caam mi ko doon jàngal xam-xam maam Masamba Caam moomu moo jur Xadijatu Caam xadijatu caam moo jur maam xalifa ñas cerno farimata moom moo jur xari mbàkke xari mbàkke moo jur ngañ xari ngañ xari ñang mooy way juru soxna sofiyatu ñang mu jur si ak alxaaji abdul aziz dabaax jur alxaaji habib jur alxaaji mansuur mi nga xam ne moom la ñuy waxtaane radiallahu anhu jamian waaye cerno farimata moom moo dellu kër nijaayam jël fa soxna su ñuy wax soxna Joosi Sekk soxna Joosi Sekk moomu moo fa am doom bu jigéen ñu koy wax Mati Joosi Mati moomu moo jur maam usmaan mi jur Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu anhu kon Baye Laaji Mansour mbokkum réew mi la xam ngeen itam Cheikh Al ak sëriñ tubaa bokk nañ ñaari mbokkoo mbokk gi ñu bokk ci ndaam dafay lënkalewaat mbokk gi Cheikh Alxaaji Mansour bokkalewaat ci réew mi ndax alaaji Abdu mu baax ma Cheikh Alxaaji Abdul Aziz Dabaax radiyallaahu anhu bi mu ñëwee Touba sëriñ Mbàkke Abdourahman nee na ma sëriñ Modou Moustapha ne ko daf ne ko demal siyaare ji sa way jur woo sëriñ Ndaamu Abdourahman loo Ndaam bi mu demee sëriñ Ndaam ne ko yow de maag sa bàyyi ña nga bokkee ca njoo si sekk ca Jolof Baay Alxaaji Mansour kon mën nga ne mbokkum réew mi la ci fànn yu bari ndax ku ñuy wax Demba Bintaloo doomi maxtaarum ndaam la ku ñuy wax daam isaa ko jur mooy maam yi ñi santloo ñépp nag Demba Bintaloo moo am ñaari doom yu jigéen ku ñuy wax mbër gu ba ak njaayi Seneba Seneba gay moo leen jur mbër gu sene ba moo jur Balla mbër gu mu jur daam buri sàmb mu jur siréloo siréloo jur antasali Anta Sali moom moo jur sëriñ sëriñ Mor Anta Sali mu jur sëriñ Touba Njaay Senaba mi bokk ak moom ndey ak baay nag moo jur Aram Loo yaayam di Kumba Caam Aram Loo moo jur Daramaan Wele Daramaan jur Bakkari Wele Bakkari jur Maam Faa Wadd Wele mu jur Cheikh Al Hadji Malick kon sotti ci la ak def ci sëriñ Touba xam ngeen ne li doxoon digganteem ak Cheikh Al Hadj Malick ay relation yu baree baree bari la ba sëriñ bi bindool ko boppam ne ko bu doon ci réew mi am na ku ma fi jàpp te dootuma ko bàyyi wala moom laa teg ca kanam jàppale na yow mi la Cheikh Al Hadj Malick Sy wa ma taxastu xalilan kuntu aarifuhu illaa ko fawqal kulli fi rutabi kon mboq gi noonu lañ ko noonu lañ ko sàmmee woon yii yëpp nag boo ko dajalee moo ma yóbba ci def étude bii ndax mbokk yàlla moo ko sàkk moo ñu ko sàmmloo xëy na ñun ñii dañ nañ ci lu bare bari waaye génération bii di ñëw sama classe ci ak ñiñ maaseel jamono lii fi seeni maam bàyyi woon mag ñi bàyyi nañ ko fi ak niñ ko ràbbee yàlla na jaatu nañu leeral leen ko ndax amul menn réew mu dem ci àddina bi lu dul say magi réew nga basé wu ba dem ci valeur ci jikko ci jaar-jaar ci ngor ci yu bare bare bare bare ba ci suñu pays occidentaux yi am na ci livre yoo xam ne boo bëggee dugg ci administration en tant que éducateur dañ la koy liir loo jàngaloo la ko ba noppi ndax nit mënta yar te basewul ci ku yaru arab yi dañuy wax ne faaqidu shay'in la yu'tihi nit lu mu ñàkk mënu ko joxe kon yàlla na leen yàlla fay radiyallahu anhum jami'an démb rek ñu ngi am émission bu ñu doon def ci làmp Fall am boroom xam-xam bu ñu fa dogal Oustaz Fadal Gueye muy wax ci liggéeyu mag ñi ci réew mi mu ne ma xolal tubaab bi lim fi def yépp ak at yim fi def yépp ak lim ne mu def ko fi ak dëkk yim fi taal ak ñim fi rey ñépp teewul mag ñi liggéey nañ ba quatre-vingt-quinze pour cent musulman ne ci réew mi loolu liggéey bu rëy la seen jot fekkewu ko seen alal fekkewu ko seen njaboot fekkewu ko seen bakkan fekkewu ko loolu nag ku la ko defal ñëw ba lépp yaatu amel nga leen njukkal amel nga leen gërëm yàlla na leen yàlla fay Oustaz Jabel lii daal ci gàttal mooy li waral baxsu bi ma def ko bëggoon nañ ko euh, jukki ci tuuti mooy lu mel ni ki hëdëf bi nga xam ne moo tax moo tax ñu def baxsu bi uhdi hada albaxth alwajiz almutawaadic ila kulli alquraai almuthaqafina alghayurina bi taarixi mashaayixina alkiram والمهتمين بالتراث السنغالي النفيس الذي سيظل درة تاريخية تسجل في قراتيس التقدير والتمييز لاحظت أن السنغال قد أنجبت أبطالا كانت مواقفهم جادة وتبقى أسماؤهم خالدة تتداولها الألسن مع الأسف الشديد لم نر أي أثر من هذا المناضل وغيره من فحول الوطن في داخل النظام التعليمي التربوي العمومي أرى أن هذا الغياب أرى أن هذا الغياب فشل كبير وهو من جهتين am na ñor ay nusxa nag foofu xata matba yi la dañoo def min sababay ni jihatay ni waaye sababay ni gi bokk ci min jihatay ni la al ula adamu muraajaati al muqararat al taalimiya fi al madaris al umumiya baada al xusuli ala al istiqlal fi aami 1960 athaniya التساهل من الفرقة المنتخبة المستقلة نيابة عن الجمهورية السنغالية عند عقد الاتفاقيات بين الاستعمار الفرنسي والسنغال wa dalika fi aami 1959 lama ata de Gaulle bismil isticmaar bismil isticmaari talbiyatan lil istiqlaal kon loolu mooy hëdëf bi nga xam ne moom lañ tënkoon bi ci des nag mooy xasida gi nga xam ne Cheikh Al Hadji Mansour da ko defoon ci euh, ki nga xam ne mooy Al Hadji Abdoul Aziz Sy muy xasida gu ma neex xasida goo xam ne di ci jànge ñaar li ñu ci mën a jànge bari na waaye ñaar yi nga xam ne moom laa ci jànge mooy kiy wax cofeelam ci ki muy waxal mënu ko mesurer benn ñaareel ba mi ngi wax ak moom waaye waxewut ak làmmiñ xol bi lay waxee li muy wax bëgg koo wax ak làmmiñ comme que cër bi gën a rëy ci doomu aadama xam ngeen ne mooy xol ndax yonent bi wax na ko ala inna fi ljasadi mudga ida saluxat saluxa aljasadu kulluhu wa ida fasadat fasada aljasadu kulluhu ala moom la jëfandikoo mbooleem luy jëriñ nit ci àddina ak alaxira Cheikh Alxaaji Mansour wax na ko ci biir xasida gi jëmale ko Cheikh Alxaaji Abdul Aziz Dabakh bokk na ca lam ko waxoon Abdul Aziz airni alqalba usika wasiyatan anka tashfi kulla ma fika fi dha zamani alladi amma alfasadu bihi wala tara ahadan fihi yusafika fa gudda tarfaka la tafxas axi abadan wala takunan tuaadi man yuaadika la tarfacan xatwatan illa wa tarfacuha ila alladi kaana anhu albarru yujzika lilmari la shakka axlaaqun tadullu bihi an ilsuali fa axsin min maaanika wa xaytu kunta fa qarib liljanabi axan yaxudu fi llahi awqaatan yuwaasiika yaxtaaju kullu jalisin min mujaalasatin min almujaalasi faxtar man yuaaxiika taxaalufu ljinsi xaalan qad yadurru axi wa aasin man bi xuduudi nafsi yurdiika wa ida hamamta bi amrin fastashir nabihan yaxsha alilaha laalla allaha yahdika wa man asaa fa saamixhu wa sil abadan min qaaticin haatikin bilqadfi yarmiika wa sawwi ahla alghina walfaqri fiika wa man ataa yadummu wa man qad kaana yutriika walsabru walcafu walixsaanu min shiyamin turdi lilaha wa lilxayraati tuhriika wala tuzakka bidacwa annaasi muctaqidan fadlan ala alxayri fahdar min amanika fa sidqu an taddai xaalan yusaddiquhu lisaanu xaalika xaqan min daawika taxaafu makra alilahi dëhla muctakifan taxta almachiati laa taxtar fa yuhwiika wa zulama laa yaquudu nafsa xalli ala tadbiiri nafsika man yadri magaazika kam min jibaarin xutta mansibahum amnun min almakri laa taman min maraaqiika watrut wa kadib li waashin wabxadanna bihi wala tulin jaaniban minhu fa yulhiika ahlu zamaani jawaasiisul uyuubi fala ta'man ala ahadin fi ma yudaariika faxdar wa xadir bi rifqin min gawaa'ilihi fallaahu man kaana daa rifqin yucaafiika inna alkarima alladi yaxmi ma'athirahu wala tujaazi mis musii'an kaana yuqdiika kun lil azimi alladi wallaaka muxtaraman wa lil azimi ulan fi lxaqi yulika waxdar shayatina insin waxsha xisbahum kam awgaluuka bi makrin min fi maraqika laa tamanan ida ma hum qad ixtashadu an yarfacuuka bi wajhin kaana yurdika te anna laa taku min aqwalihim abadan mustaajilan an janaabillahi waafiika kam minhum ubtaa dunya sheykhi min tamain bi diinihim biisa man billaahi yuxzika wa man bi ridaahu wa man ridaahu bi suxti nnaasi munhamikan wa axdasu bidaan minhum tunaafiika xaafuuka fi llaahi tawqiiran bi xurmatikum wa maa raacuu xaqa baariihim wa baariika ala amaanaati mawlaaka ataman abadan minhum safiyan yusaafi man yusaafika والظلم والإفك أقصى قربهم ولهم من بالنميمة يسعى بين ناديك وأنت يا ندب مسؤول بما اجترحوا وهم على العكس فيما كان يعنيك هم الرعية يا راعي فيسأل عن تلك الرقيب فلا تخفى خوافيك ما العيش فاربأ على الدنيا سوى كدر ولا بها لذة في الحال تجديك wala tutcibi nnafsa bima lasta tudrikuhu ma daamati nnafsu laa taqbal turajjiika laqad xalaqnaa axil insaana fi kabadin tasliyatan min kalaami llahi takfiika wanhad ilayhi bi qalbin laysa yushghiluhu an ilcawaa'iqi shay'un jalla haadiika falaa yaziiduka iqbaalu lwara sharafan cinda alkarimi wala lidbaaru yuqsiika haadi nnasixatu xudhaa yaa axi thiqatan laa zaala yaqla'uka almawla wa yu'lika yaa rabbi salli ala almuxtaari min mudarin wal aali wa saxbi maa daamat ayaadika loolu mooy xasida gi nga xam ne defoon na ko ci cheikh alxaaji abdul aziz si dabaax radiallahu anhu muy xasida goo xam ne mbooleem jikko yu cheikh alxaaji abdul aziz dabaax yore woon rek gannaaw bi mu génnee ci école góor gu mag ga boroom xam-xam bu mag ba muy maam Hadi Touré nga xam ne taalibe Cheikh Al Hadji Malick Sy wax la mu wax ca moom ak dénkaane yëm ko dénk surtout démb mun a demal xeñtu sunna lu dul sunna bon na lu dul sunna bul ca jëm gannaaw ba mu takk wii ne ci ecole boobu nag lu nekkaat ci moom ne góor gi moo ko ci waaye noonu mu ko waxee Cheikh Alxaaji Abdul Aziz Dabaax noonu la ko bàyyi Alxaaji Kebe wooyee xasida gu yéeme xasida gu neex ci même baxru muy baxrul basit ne ko rabbaaka raqaaka xata xusta jumlatama lahu kamalan wa ilman bilqawaaniini wannaasu qaalu jamian inna laylatana baarixatun duuna shakkin walbarahiini jazaaka rabbuka xayraati muayidikum bi nasrihi musqilan kulla almawaasini mutawilan umrakum mudiima majdikum musaxihan jismakum bi jaahi yaasiini tii nafathatun min muridin mubtalan abadan bi xubbikum umrakum mithla almajaaniini laa tansa laa tansa yaa jaxjaaxu taalibakum yat bi daawati alxayri inni kuntu daa huuni salli wa sallim ala almuxtaari min mudarin udda rimaala udda rimaali ilaahi karrayaxiini zurnaaka zurnaaka yaa mansuuru yaa sanadi yaa bahjata diini yaa mawal masaakini am na alkaibi wa mayra annaasi kullihimi yaa manbaa alxayri yaa bushra salaatini tawda aljalaalati sabrun qalbukum salima yaa mujiba alqawmi suudin walbayaadini zaada almusaafi misbaax albilaadi wa kan zal majdi walilmi bal xaawi almaxaasini ani bihi najla cheikh alqawmi malikina naa naafil jahalati xallaabi shayatini lawlaaka lawlaaka nabki faqda walidikum yaa xaamilan kullana kulla al axaayini wal aali walsaxbi wal azwaaji qaatibatan ulil kamalaati subbaaxil mayaadini kii mooy xasida ki nga xam ne bàyyil xaaji kebe defoon na ko ci Cheikh Al Xaaji Mansour ne ko daal lu mën a xew nii rekk nga mën a mel ndax ki la defar ku mu defar kooku loxo yum noppi baax rek nga mën a def muy Cheikh Alxaaji Maalik Si radiyallahu anhu waxoon na ko fardun alal ibni shukrul walidayni antal walidul barru yaa ustaada sindidu imam jabel xanaa tënkaayu waxtu wi ak wala boog bañ waxtu wi dem lu bari ñoo ngi jégalu ñépp lii moo doon gëstu bi nga xam ne def nañ ko ci gàttal doonte ne nag niñ ko defee ci arab am na ñeneen def ko ci français suñu sëriñ sëriñ Sam Mbàkke bu Daaru Salaam mu ngeen xam nekk doom ci sëriñ Gédé Mbàkke baayam moo doon ilimaani Touba moo fa daan jiite tarawih yi nga daan dégg moo ko war a moo ko war a def version français insha allahu rabbi am na nañ yéen itam def ko anglais ndax cofeel bu ñu am ci góor gi loolu yàlla lañ koy seddal liggéey bu rafet bu mu def diggante mboolem kër kilifa diine yi ci jamono nekkoon góor gu baax nekkoon góor gu mën a dajale nekkoon góor gu ëmbal itam yàlla nañu ko suñu borom tabaraka wa taala fayal di ñaani rek tamit du moom rek waaye Sénégal lim am ci ay mag dañ war leen a présenté àddina bi dafa bari boo gisee jikko yi ñuy kaas di ko wax bokk na ci cause yi sama xalaat mooy suñuy magi réew dafa bokk ci suñu système éducatif amul benn benn jeexital bu def suñuy doomi réew ndax nit bokk na ci li nga koy gën a jege li nga koy gën a jox exemple buy jàng mooy li ne ci environnement bi muy dund loolu bokk na ci li koy gën a dimbali boo ne kat diw ko am ngor la nga ne ko fu mu dëkk mu ne kajoor bu fa noppee pour dem kajoor gëstu kooku du ko jafe boo ne ko diw mii kat lu ñuy seet ci as gor ci ngor ci diine ci maandu ci xam-xam mi ngi fi waaye mi ngi fii bawal non seulement dem bawal du ko jafe waaye référence ya nga koy delloo ci bind mag mooma du ko jafe loolu daf ñoo dal ci suñu système